donc seen koppar express yooyu ku ne xam na ne ay tappale la ay xeetu njuuj njaaj la ñu jël maquillé ko camouflé ko ay dóor la lépp ay xeetu dóor la la euh, kii euh, moom moom waajooj sant jaañ dóorkat boobu sant jaan ak keneen ki xaw ma nag beneen waa ji xaw ma nu tudd xaw ma nag daal jiim ak waa ji sant jaañ te mu dawoon ñooñu toppee Hannibal Djim du ay affaire politique seen koppar express yooyu lañ leen tëbalee woon kële daw parce que ay nit ñoo leen porté plainte c' est ça la vérité loi d'amnistie bi bu tëbee bu moo tax dama sawar ci euh, opposition bi ndax bu dee Ousmane Sonko dongum loi d'amnistie duñ ko mës a yëkk ndax ne si buñ ko abrogé moom Ousmane Sonko day duggaat prison te dem d'amnistie bi dafa am ñu yoo xam ne ci biir yu yu Sonko amul intérêt mu fël génn moo ne woon Ablaye kii Adji Sarr dañ ko complot te léegi loi d'amnistie bi nëbb nag feew Adji Sarr yi mais dañ ko complot te moom moo yor nguur gi moo yor lépp moo téye réew mi mais nañ abrogé loi d'amnistie bi danañ xam la moo nekk ci koppar express yi ba kii waaj sant jiim ak kii jaañ kii Hannibal Djim jiiñ xaw ma lan ñu ñu ñu ñu tëj leen danañ xam lu bari na d'amnistie moom tôt ou tard nguur gi moom duñ ko duñ ko duñ ko yëkkati moo tax ma ne sénégalais yi yéen ñi bëgg dëgg yéen ñi bëgg a xam dëgg dëgg ñor leen bu ngeen juumee encore une fois ba jox Ousmane Sonko majorité assemblée nationale yàq ngeen réew mi da ngeen participer ci luy nësaxal réew mi te di ngeen ko layoo ak suñ dinañ mais ku bëgg dëgg ku bëgg ñu ñu yëkkati loi d'amnistie bi jox leen majorité opposition ñu yëkkati loi d'amnistie bi xam ndax Macky Sall foofu la ñu tooñee Macky Sall fu mu ñu tooñee dëgg mooy li mu fi indi loi d'amnistie euh, ba génneel bande yi nga xam ne dugaloon nañu ci prison te ñu làqatu ci ginnaaw Ousmane Sonko waaye lu loxo mën lu loxo def loxo mën na ko dindi donc su ma nee Bassirou Diomaye fay Macky Sall bam ñu saraxee Sonko Bassirou jomaay fay moo parachevé cette œuvre là parce que dafa toog ab diggé jébbal ñu moom i tamit Ousmane Sonko te Bassirou ku war a ku war a soppi doxalin la yàlla tàcco da ngay fecc boo fecc dootoo fecc te ba mukk